maire lii doy na waar. Ah, maa ngi nii de doo sonn ba bëgg a dee metti lool. loo tudd. man Aïda Diaw laa tudd. ñaataat nga def. benn weer laa fi def. locataire bi. dama fee luye benn weer laa fi def di togg mbana dem ba opéré sama bët yi yaa ngi dégg mënatumaa togg la ma dajale woon lépp ma dajale ko dajale dajale joxe ko lu joxe ko avance ñaari weer. maa ngi nii toog fi mu nekk nii. nga ne sànq biig ci mbedd bi nga fanaan. mbedd mi waaw ci laa fanaan. mais bi ngay dëkk fii tam xanaa xooloo parce que gis nañ ci ginnaaw mbarax bi fi nekk ak ak ak ak ak forêt amul problème dañ ma ne amul problème fii du taa amul problème fii du taa loolu moo fi indi. ani borom kër gi. borom kër gi woo naa ko ba vocal ko wax ko ko mu ne mi ngi dina ko lijjanti waaye dara ba tey gisal. borom kër gi mi ngi fii Dakar. waaw borom kër gaa ngi dakaar booba léegi ñëwul xool ci leen ko. bi ci guddi ba léegi bi ci guddi ba léegi laa ko woo ñëwu fi seet si ma. ana njaboot say doom ñan nga fi dëkkal. sama ñaari doom yi góor laa fi dëkkal. mooy kenn ki nga taseel nii léegi ñoom dañuy lijjanti rek bu teyee ñu am bu ëllëgee du ñu am sama borom kër dafa retraité yorul dara man maa de yor sama lépp maa yor sama courant sama ndox fay location samay doom bu ñu amee ñu indi ñu bokk liggéey bi nag demewut noonu. jafe-jafe yi ci biir ju dem ci biir kër gi parce que dafa pare que saal bi lépp. yàqu na saal baa ngi nii lépp yàqu na saal baa ngi baa ngi baa ngi nii maa ngi nii saal baa nekk nii fauteuil yaa ngi nii lépp yàqu na lépp yàqu na. ci yan moment la la la taw bi songu. taw bi ci timis la commencé ci timis laal la commencé waaw. lépp nag mu fanaane koo taw ba bër set wecc ana ban heure ban waxtu ndox mi dugg ci biir kër gi ba ba ba génn la mu ñu noddee timis ba mu taw bi sóob rek la ki ci kaw këram di senn deuxième ñu dow di ko wallu bi ñu paree mooy ma ne xaar ma ñëw jéem a julli timis ak yooyu ñëw xool foos bi commencé foos bi day ball yàgg nañ ko koo wax foos bi bu ballee day jàpp ci salle de bain yi génn mu ne foog ñu ngàcc ko bu ñu ngàccee it du tee bu feesee rek mu daal di génnaat d'accord euh, li ma bëgg xam mooy ndox bi ndoxu bi moo wàcc ci biir kër gi wala dafa ndox bu refilé ci mbedd bi dugg wala. lan ndox mi dafa jóge ci mbedd bi dugg ba pare foos bi dafay ball xaw ma woon ne day bal léegi euh, lan mooy pexe bi lan nga xalaat parce que yaa ngi ci jafe-jafe yërëm ñeewantu naa la métti na. kaay xool chambre à sama néeg samay kaay xool sama ah, ñëwal xool néeg baa ngi ni néeg baa ngi ni néeg baa ngi ni néeg baa ngi dugg si. boo armoire bi yëpp suulu na gis nga armoire bi suulu na ndox mi yéeg na sama yére yëpp tooy na salle de baa nga ne fees na dell ak ndox ndox maa ngi nii yéeg na ba ci kaw lal bi maa ngi nii lépp a ngi nii di tàll lépp a ngi nii di ball ah lu may joxewaat avance ci fenn wenn weer dong laa fi def aw ma lu may joxe waat avance jaayuma jënduma ñaari doom yu góor laa am dañuy lijjanti bu teyee ñu am bu ëllëgee duñu am sama borom kër retraité na na fukki at ak man maa yor sama bopp yor sama lépp su ma amee xew toggi ca gëj na maa am xew ndax sama bët yi dama ko opéré duma laal mbana fi mu nekk maa ngi ci ñaari weer toog. jërëjëf muy jafe-jafe yoo xam ni Seydou nit ñaa ngi koy dund saa su ne bu tawee lii am fii moo am ginnaaw raay. mu am Pikine mu am xaar yàlla mu am Kër Massar mu am partout nan leen mën a def ba lii jóg fi. congélateur bi yàqu ndox mi dugg na ci biir congélateur bi yàqu na ndox mi dugg na ci biir ma ne ko bi yàqu na ndox mi dugg na ci biir. waaw sama bëti big yaa ngi nii fii ci su mbedd mi maak sama dëkkandoo bu na ci dugg na ci armoire bi. dugg na dugg na ci armoire bi dugg na ci xoolal moteur baa ngi nii xoolal moteur bi yàqu na moteur bi yàqu na fii yëpp am ndox la fii nga wax lan jaamu yàlla yi ñi lay seetaan ñu mën laa jàppale ndax yaa ngi ci njàqare te asamaan saa ngi taw ba tey. asamaan saa ngi taw ba léegi kaay xool beneen néeg bi sama néegu doom banaan baa ngi nii kaay xool néeg bi moom it ay këyitam yëpp yàqu na gis nga ko. ay këyitam ak dàllam lépp la yàqu na lépp a yàqu gis nga kabina yaa ngi nii di bal kabina yaa ngi nii di génn ci duus bi kabina yaa ngi nii di génn ci duus bi gis nga côté waañ baa lépp a ngi di ball nii di ball jàq naa jaaxle naa ku ma mën a dimbali te yàlla tax ma wuti avance dëkki fa ma sant la gërëm la ñaanal la suñu borom yàlla may la gudd fan ak wér sama loxo jotu sama ginnaaw rusuma tàllal loxo sama roxo jotu sama ginnaaw rusuma tàllal loxo ci barke alxuraanul karim ku ma mën a jàppale jàppale ma te yàlla tax. tey boo amoon ku la mën a dimbali ci ñaari néeg sax baax na nga dëkk fa yow ak sa doom parce que xam naa ne pour jox la ak caution wu avance ak caution wu dana xaw a métti ñetti weer mais dana métti mais itam pexe amut tey boo amoon ku la mën a dimbali ci ñaari néeg sax baax na. waaw ah fu ma mën a teg sa bagage yi rek bagage yi yëpp yàqu na ak lu ma ko mën a liggéey fi mu ne bagage yëpp yàqu na. bagaas yëpp yàqu na. metti na seydu doy na waar lii mu ngi amee fii ci ci Zac Mbao si presse bi ñu ngi fii. dugal bagaas yi aw ma fenn fu ma dugal bagaas yi photo yi aw fu ma ko teg éponse yaa nga ne fukki nit sax boo leen ko joxoon mënuñu koo yëkkati ndax fees ak ndox. te borom kër gi lan nga koy waxaat comme sax moom tam donte sax moom dalaa luye mais tam mu ñëw masawu la rek sax xam sax li ngay. dund naa ko ko depuis biig ci guddi ba léegi tànkam taxawu fi. gisuma ko dégguma. fan la dëkk. man dañ ma boole woon ak moom rek defe naa biir dakaar daal la dëkk mais man xawuma ko dañ ma boole woon ak moom. mais tam ku xool mbarax bi tam ak ni mel àll bii meer wax dëgg yàlla. ñëw fii booba fii dara amul benn kii ñax yaa ngi fi daal ñi ma jàkkaarloo ñii dañ ma ne fii amul benn problème ma ne ah ñu ne waa ñu ne kon baax na ma daal di nettoyé dëkk mais su ma xamal ne nii lay mel duma fi dëkk. Seydou dinañ def numéro maire bi ci écran bi lu ko waay mën a dimbalee daar daar daar nga dimbali ko ndax kër gi lépp ndox la mi ngi yarul ñu leen koy wax te asamaan si yàlla ji mi ngi tawaat mi ngi tawaat ci mbedd mi la fanaan biig nelawut kon nañ ko dimbali te lii moo am fépp ginnaaw raay ga ma jógee sax lii moo fa am man mii suma biir kër rek dama fanaanee ngàcc ba ba set kon loolu c'est partout mais tam boroom kër gi maa ngi lay tàllal loxo rek yow mi nga xam ne yaa mu joxoon la ay avance dëkk waxuñu sax nga ñëw jàppale ko waaye nga ñëw masawu ko xool lal ci lal la fanaan comme wax dëgg yàlla tam euh, daa daa day luye rek nga luye ko waaye ñëwal masaw ko sax xool sa dëkkandoo bi sa mbokku jullit bi mi ngi ci njàqare mi ngi ci problème toujours li may wax rek àdduna moom bu tëdd jotee nga fëgg salal tëdd am na ko fanaan ci ndox mi am na ko fanaan ci njàqare boo xoolee suñu yaay ji ci mbedd bi la fanaan nelawul te ba tey Seydou asamaan si mi ngi nii di tawaat. mi maa ngi toog yaa ngi ma fekk ci mbedd yi ma toog ba tey ak sama dëkkandoo bi moom it noonu la def dañ ko abal fee sax mu doomam yëpp ñu ngi nii mu joxal jalax leen léegi ci benn dëkkandoom pour mu may ko ndékki ma nga nee toog moom itam. Mhm. yal na yàlla indi si amin amin amin Dakar Buzz gëm naa ne léegi solution am. jërëjëf yal na leen yàlla fay may leen gudd fan ak wér ci barke alxuraanul karim déplacement bi rek dafa doy lu ne ci kàddu yàlla yàlla rek moo leen di fay mais nun mënuñu leen a fay jërë ngeen jëf. Seydou asamaan saa ngi tawaat ñu génn ci bi dañ dem ci biti ci xool barax euh, ba nga koo wane kon léegi woo fi da fi dëkk. waaw dama fi dëkk waaw. ñaata at nga. 2011 ba tey maa ngi lan moo indi problème bi tey ba ndox mi refilé wu ci seen biir néeg yi ak seen biir. presque miiru si presque parce que ba tey ñu ngi fi dëkk mais mosuñu woon inondé mais su ñëwaan mbedd mi dina am mais après soo nga ceeb mu dem biir kër gi du am mais ren ji moom yéeme na yéeme na. mel ni biig ci mbedd mi ngeen fanaan. si lañ fanaan de démb fa lañ toog ba bës set fi nga ñu fekk noonu ñu toog fa lañ toog ba bës set. te asamaan si ba tey mi ngi nii di tawaat. di tawaat arrêté gut xamuñu daal fu ñu jëm ñu ngi nii daal ci guddi gu bët setagut. lan moo indi ñii ba ñu baare miir bi. ah xanaa yabaate te am doole. yabaate daal te am doole. dem nañu fu ne wuti nañ lu ne amuñu ci am dara amuñu ci denn solution ñun daal ñu ngi nii xamuñu fu ñu jëm ak sunu njaboot. ak jafe-jafe yi ndox mi ci biir kër gi nii te yàlla jéeg mi sëbatul nan ngeen fas yéene defaat. ah xanaa toog ci mbedd mi rek di xaar autorité yi ñëw walluñu dimbali ñu rek fi na daal ñu ngi xool ñoo wala ñu jéem ñoo daaneel miir bi wala ñu wax sapeur yi ñu ñoo pompal ñu ba xam ñu ñuy def parce que amuñu feneen fu ñu jëm mënuñoo meeb suñuy njaboot di dem ba fi suñuy bagage même solution ñëw jéem a manque ndox mi tam sapeur yi daal bu ñu ñëwoon may ñu loxo dina tane parce que canalisation bi ñu tali ñoom bu ñu ñëwee mën nañoo manque seen kii yi teg si tali bi ñu may ñu doole tuuti daal ñu mën a xam ni ñuy def Chérif ci kër gi. non si koñ bi laa dëkk tey ñoom ñu ne li indi refoulement ndox bi ci biir kër yi miir miir bi ci la bokk. waaw miir si biir si la bokk parce que bu ñu fi dëkk ba léegi mosu ñu am problème bi. kañ la miir miir. ça ko miir tam pour. am am am nañu dem waaw ah, miir la ko yoon la day dem ñoom bu ñu ko defoon kii tam du tee ndox bi su jàllee tam du leen sonal. du ñu am problème ñoom parce que am na am na assainissement dafa lay dugg si yóbbu dem. la. yàlla man def naa fi jafe-jafe yi population Kër Massar di dund ba kañ. ah xam boo leen ko xamee wax leen ñu ko sonn nañ de sonn nañu daaw moom ça allait bien mais année bi mu ngi nii encore le cauchemar recommence. kër yi wër bayal bi yëpp ci ndox la fanaan. si la ñu fanaan de man de si kaw terrasse bi laa mujjee yéeg jël samay doom ak leen si kaw sama dëkkandoo yi sama biir kër yëpp ndox la bagage yi mu ngi noonu yàqu nañu aj nañ leen ci mool. mool yi mujjee naa ndox bi mujjee na dépassé mool ba laal meuble yi dañoo aaj aj ba togg sax fu mu nekk nii defuñu ko. nga wax lan autorité yi ñu dimbali leen bu xool lii solution. ñun sonn nañu sonn nañ ñu defar canalisation yi ñu ngi ni defar nañu canal fële mais canal bi daa mel ni moom njëriñ moom gisuñu ko si daal sentiruñu ko si. yàlla mi ngi taw ba tey. ah mu ngi taw de mu ngi ni ñu ngi ñaan yàlla mu arrêté taw bi. tey togg leen ak ndekki nañ daaw. ah nooy nooy demee man mii mënuma dem sama doom bu góor bi mooy déplacé te moom ndox bi mu ngi koy yem si ndig asumaak man man bu ma demoon xanaa kon fii la may yem mooy li may wax rek population Kër Massar daal ci li lañu fanaan biir ci ndox mi muy lu metti loo xam ne tey daanaka kër yi ne fi yëpp dañoo rayee ci suuf dëkk ca kaw daanaka tey ci suuf kenn dëkkatu bi ñëpp ah. ci kaw ñi nga xam ne moom dañoo étage ñooñu moom ñu ngi ci kaw mais ñi nga xam ne ay këru suuf lañu amuñu pexe dañuy dëkk ci biir ndox bi rek li ca évoluer te fu mu nekk nii sax douche yi sax ak bouche yeeg yëpp waaw yëpp a génnante duggante ñun ñuy asma jël nañu suñuy garab def pompe ñu ngi nii ci masque yi baat yi changé na parce que. yàlla na ko yàlla tey mu mel ni problème bi tey euh, du tey rek yàgg na. non yàgg na fi yàgg na fi trop sax yàgg na fi de 2020 tamit même chose la ni la meloon. wax loolu autorité yi. autorité waaw mu li wax mooy mu mu sëggi ñu quoi xool ñu xool xool xool suñu situation métti na trop parce que da ngay jël sa kër financé si xaalis bu bëri nga ñëw un jour rek comme waa ji nii boutique la yor mais boo xëyee suba rek ak lii bett la ak marchandise xaalis bi xam nga doo doo comprendre lu ñuy wax état bi mooy na ñëw jàppale ñu xool xool affaire yi na trop quoi loolu rek ñu am lu ñu wax. ah lamp lamp. lamp bi Kër Massar di dund ay at ba waaw moom waxuma la ba moom amuñu yaakaar ci kenn état bi fi jógee bi fi ñëw yëpp. amatuñ amatuñ yaakaar ci benn état parce que defe naa ne 12 ans 13 ans 2020 bi gis nga ni mu demee woon xam nga parce que mille 2020 bi gis nga gaal yi doon fi daw. Macky maa ngi fi woon booy bi fii président Macky Sall doon ñëw. président Macky Sall ñëw fii. liggéey fi lu bëri vraiment def fi dara it. day joxe fi xaalis gars yi commencé travaux yi mais bi mu demee ba léegi travaux yi ñun fii unité 3 dafa taxaw. lu tax mu taxaw ah mais ñun moom la ñu xamul parce que état bi ñëw bees. dégg naa mas nañ fi ñëw pour visite benn yoon ànd ak préfet ak sous-préfet ñëpp mais ñun yëguñu ko population bi yëguñu ko dañoo ñëw yoo ñëw xool dem man dem naa Dakar toog gouverneur toog ci état bi. toog nga ak gouverneur toog naa gouverneur Abdou Samane moo ñu yóbbu ma ne ko gouverneur monsieur le gouverneur mu naa man a ko euh, suñu suñu fële suñu unité 3 Kër Massar unité 3 bassin bi nekk foofu bassin bi nekk unité te juñu ko te bés bu tawee dina débarquer dina dugg ci kër yi wax naa ko keroog bi ñu demee ministère encore ministère bi woo nañu. bi ma demee sama délégué laa délégué na ko waxal délégué wax na ko fa ne leen bassin bi fekk tëjuñu ko amuñu yaakaar parce ndox bi jógee jaxaay di jógee unité di jógee unité 13 parce dañ defar régal yi nga xam ne moo wër unité ndox mi fi daan taxaw doolu du ñëwee bassin bi ouverture dafa tëjoogu parce dañ doon wax ne am na kër yu ñu war a jox xaalis gaa jox nañ leen xaalis génn nañu ba bàyyi seen i kër mais waxuñu loolu première ñaari bassin lañ fay def mais première bassin bi dañ ko fermé beneen bassin bi ANACIM dañuy wax pro bëgguñ ñu wax dëgg fii li fi nekk dafa garaaw te état bi itam jàppalewuñ ñu dañoo ñooñu war a dimbali état bees bi ñëw ñi ñu amoon ci ñoom mais ñoom ñoo war a ñëw jomaay nañu dégg na ñëw wax ak gaayam yi situation bi nekkul situation bu ndaw non tey boo xoolee unité 3 lépp ndox la grand pendant 10 ans ñu koy dund ñoom xam nañu ñoom ñoo la gën a xam ñoom waa waa waa état bi fi jógee xam na bi fi ñëw nii xam na li fi nekk mais dañu seetaan dañu seetaan dañu sopp ñun te dinañu dinañu ñu dégg. seen taxawaayu meer lan la parce que lii maire est-ce que jotal na ko tam gi euh, nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi. meer maire ñun dañu am maire. waaye ñun amuñu mooy maire. waa ji fi nekk nan mooy maire bi ah. Bilal Diatta mooy la dañ nekk di wax rek di di ko jeeg di wax rek mais ñun xamuñu ko sax. dara noo tudd. man maa ngi tudd Serigne Modou Diakhaté. fi nga dëkk man ci Moustapha Diakhaté waaw maa ngi dëkk nii ci ginnaaw rek. jafe-jafe yi Kër Massar unité 3 dund. bari na trop trop daanaka mënee su ko lim ndax man yàlla dafa dogal maa ngi yor moto 3 roues di wër ci dëkk bi ne boo demee ci ginnaaw nii moo gën a garaaw fii yaa ngi seen oto bële na mel donc kon maanaam lii nii lu ñu war a taxaw la bu baax a baax te lii depuis Macky Sall parce que bu ñu fàtte ni bi Macky Sall di def Kër Massar département catastrophe bu mel nii moo fi amoon. gis nga ba tey xaalis bu ne def nañ ko fi gis ñu benn résultat xam nga lii jaaduwul ci lu toll ni état Sénégal fii ay doomi adama ñoo fi dëkk di fay ay impôt di seen droit yëpp ñu koy fay ah gis nga jumaa ji tamit ndox maa ngi ci biir donc lii état bi def ci war a taxaw bu baax a baax ñu ngi ñaan autorité yi ñu gën a taxaw taxaw ci citoyen bu baax a baax parce que lii nii metti na trop ca fii rek parce que man nee naa la moto trois roues laa damay war ci dëkk bi fi ne boo demee fii ci ginnaaw moo gën a garaaw nga dem nu mu tuddati sànq dem naa yi ak euh, boori Zac Mbao fépp dëkk bi nii la mel fépp nii la mel donc nañ jàppale nit ñi gën jàppale nit ñi loolu mooy dëgg ku ko waxul waxool waxoo lu xam waxoo loo xam. mooy situation bi daanaka tey si Kër Masar unité 3 ñu bari ci ndox mi lañ fanaan. ci lañ fanaan. ci lañ fas yéene yéen. ñun démb ñun bi ñuy julli gee ci jàkka ji dañoo boole. te mooy. bu boole timis ak gee xam na loolu sariya maye na ko bu taw bi nag ca noon la taw bi daanaka noonu la fanaani ba bi ñuy julli suba yàlla xam ne tey suñu jàkka ji sàppe yi matut ndax taw bu bari donc kon waxuma ne nit ñi nit am na ñu réerut parce que taw bi mi ngi commencé ay 19 heures 19 heures 17 la taw bi commencé Kër masaar kon vraiment lii daal nañ ci taxaw bu baax. waaw yéen tamit euh, yéen journalistes yi vraiment ñu ngi leen di sant lii nag mooy seen rôle xool nit ñi fi ñu nekk fa gën a ruqe ñu génne ko parce que bu ñuy wane li ci kaw nii rek lii. laa génne la fa ne doy na waar xam nga lii xuus bi rek ndox mi yëpp microbe la donc volonté boobu ngeen def noonu vraiment ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax a baax. Dakar Buzz bëgg-bëgg askan wi ko fi bàyyi. mi ngoog vraiment Dakar Buzz moom ca kanam. jërëjëf. La